comprendre nga. nu réew mi mel. ba équipe bi mel ko. non équipe bi xam nga sur le papier ñëpp dañ naan la Sénégal mooy meilleure équipe xam nga la. Mm. je pense que kan yu bari yii yëpp passé bu commentateur sportif yi baaxee dañ naan sur le papier équipe bi Sénégal am kenn amu ko <coughs> c'est comme réew mi rek réew mi par exemple atu yi ñu am naanaa mën naa ne Afrique kenn amu ko atu bi njëkk am mooy stabilité nga xam ni. dañu am ñun 60 ans 61 ans de stabilité 62 ans de stabilité boo xam ne daanaka pays africains yi kenn amu ko. Hmm. yàlla def ñu am géej am suuf lépp maanaam li réew war a am yëpp am nañ ko. Hmm. mais le pays est une symphonie inachevée c'est-à-dire que réew mi euh, fi mu war a àgg àggu fa li mu war a def defu ko role bi mu war a jouer jouer wu ko c'est-à-dire que c'est comme équipe bi rek dafa réunir éléments yëpp ah on a les meilleurs joueurs du monde chaque fois sur le papier extra mais duñ dem fen loolu nag réflexion la quoi c'est-à-dire loolu mooy ban ambition lañ am parce que joueurs aussi waa Sénégal lañu ah est-ce que du problème mu ambition pour le pays xoolal par exemple Camerounais bu ñuy football nga gis Arni bi ñuy footballé nga gis ñàkk bi ñuy footballé tu comprends nga gis détermination bi ñuy footballé loolu état d'esprit la loolu du talent rek bon sénégalais nag lu ñuy lijjanti mën na fexe ba jot ci mais lu ñuy loo xam da ngay xaru ba jot ci wala looy looy looy xeex ba jot ci pour mu jot ko dafa jafe donc il faut ñu xoolaat suñu état d'esprit au-delà du football ah. réew mi voilà waaw mentalu réew mi maanaam ñagu réew mi bëgg détermination xam nga ne la loolu dafa am solo quoi parce que nit ku ne aussi ni ngay xalaate noonu ngay footballé noonu ngay jànge buñ la joxee responsabilité noonu nga koy defee. tu comprends donc réew mi il faut ñu am psychologie. gagné gëm ni dañu war a gagné. par exemple da gis ay équipe yu ndaw ah, yu ñëw Coupe d'Afrique mais même bu ñu leen di dóor it xam ne ñi joxe nañ li ñu am yépp quoi. def nañ man man daal loolaa gis ba pare aussi dafa am beneen affaire bu am xam nga euh, mas naa waxtaan ak un benn paa bu xam football. mu ne ma Sénégal li tax même bu ñu amoon effectif bi gën a rey ci monde bi mënuñu gañe mooy da gis par exemple ñi nekk bu ñu bu ñu defee élection fédération de football ba pare ñi perte ñëpp ñi ngi xonjam équipe bi. pour équipe bi bañ a non mais c'est vrai pour équipe bi a gagné mukk tu comprends cest à adversité bi nekk ci réew mi entre nit ñi mooy àndi handicapé équipe bi dans beaucoup de domaines <laughs> xam nga la euh, paa bi dafa dem ba ni mais ci biir joueurs yi sax ci biir équipe bi dañuy xonjamante pour ay place est-ce que tu comprends donc loolu yëpp boo ko gisee mais équipe boo xam ne même joueurs yi dañuy xonjamante pour des places mais équipe boobu fan la mën a gagné bref mhm. nañu xoolaat suñu bopp nañu yeddaat suñu bopp ah parce que aussi mën a football baax na trop mais victoire aussi Charles tu parles de la cuisine de l'équipe nationale c'est quoi